Eh, li ko waral nag comme ni leen ko waxee mooy ñoo ñun teg loxo can bokk ñoom moo waral seen jaamaarloo yooyu ba tey lu soxal wàllum njàng mi ki nga xam ne moo di ministre de l'éducation nationale moom nag daal dinay anticiper li nga xam ne moo di eh, feeti vacances yi mooy maanaam pag yi ni ñu dëgmal eh, can jàppoon ko nag la le 31 mars 2023 bii ñu nekk suñu kanam daal dañ koy anticiper nag ni ki tey jii ci altine ji bu 18 heures jotee fii ak yu néew feet yooyu daal dinay tàmbali li ko waral nag mooy euh, manifestation yi nga xam ni waa yeewi askan wi jàpp nañ ko moom lañ jàpp ni moo ko waral euh, ñu bëri samp am laaj que lan ma waral ñu anticiper fête yooyu nga xam ni le 31 mars bi la waaye ñu jàpp ko nag ni ki tey jii bu 18 jotee mu nar a wëy ba le 12 avril 2023 à 8h ci la feet yooyu nar a jeex. le 31 mars bii nag xam naa dañ ci xalaat li nga xam ne moo di yëngu-yëngu yu nar a am fii ci réew mi Euh, ñu nar cee amal li nga xam ne moo di procès diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñu jàpp ko le 31 mars bi ñu dëgmal waaye feet yooyu daal jàpp nañ ko ni ki tey ji bu 18h jotee waaye di mën a wëy ba le 12 avril 2023. lu soxal wàllum yoon nag euh, ki nga xam ne moo di El Malick Ndiaye bu Pastef moom nag daal dinañ koy euh, libéré daal dinañ koy takkal nag li nga xamante ni moo di bracelet électronique maanaam. bracelet boobu daal bu nga ko takkalee dañuy xam moom El Malick Ndiaye ci lan lay yëngu ci lan lay nekk waaye. yoon daal dootu maanaam dootu fanaa dootu nekk daal fi nga xam ne moo di ndungu siin waaye dinañ xam ci lan lay nekk keneen kun ko takkal tamit mooy ki nga xam ne moom moo yore sécurité bu Ousmane Sonko muy Waly Diouf Bodiang moom tamit euh, daal koy takkal brassard électronique boobu waaye ñeneen ñi nga xamante ni euh, teg nañ leen loxo can euh, bokk ci parti bi di Pastef bàyyeegun leen ki nga xam ne moom moo jiite nemeeku tour bu Ousmane Sonko moom nag ginnaaw bu mu publié woon ci page daal que ni Didier Badji dañ ko ndax sàkkaluñ ko pexe moom loolu moo publié ñu page Facebook am daal loolu moo waraloon ñu daan doon ñu daan doon koy teg loxo moom mi nga xam ni mi ngi bokk ci farandooy Ousmane Sonko eh, jiite li nga xam ni moo di nemmeeku tur bu Ousmane Sonko.